góor la bu lamb ji sàjjee mbër ma waaf ca ba sama yaani ngaan ñaay maroo laale baaxu góor la fasit naaru góor yi takk nan leen ku man na nga war ku manul te nga toog lamb ji rëy na lool waaye tudde nañ ko ku rëy lool muy suñu ministre Dame Diop daam sama xarit yàlla njaari maro laale baaxu góor la waaye bu lamb ji sàjjee mbër ma waaf ca ba ñu jàpp ne aussi làmb ji nga xam ne bokk nañu ko moom di ci yëngutu lu lum bëgg nag bëggum ko bëgg moo tax mu ma ci may doole bëggum ko bëgg moo tax mu ci def alalam parce que jàpp na ne suñu yëf la ñoo ko moom làmb jëggaani ñu ko yëf yi sénégalais la aada fii ak ci ak cosaan ci suñu biir ñu dem ba si yàlla may ko ci palu président Macky Sall ci nekkam ci jiite région de Diourbel am na ci lu ñuy mën a wax ne tey ci làmb avancé na muy tey drapeau chef de l'état Diourbel gii lañ koy tëggee ren kon su yàlla defee loolu làmb yi dox ci diggante ak drapeau de l'État ci diggante bi bu ci am rek am na yéene taxaw ca ak ku ñu mën a dénk bis booba. te bul fàtte bi jàll tamit. Hmm. Jurbel moo ko moo ko moo ko jël te taxawaayu monsieur le ministre Dame Diop CRG bi ñoom ñi ngi koy rafet lu bu baax a baax loolu moom sama kanam la. mooy ci Kaolack. Hmm, ci Kaolack. waaw xam nga bu ma la waxee ci Jurbel. Jurbel la nu dëkk nag. dama jàpp ne kii dem ba Kaolack di jàppale chef de l'État ci la fay def. ku ko def ci dëkkam mu jàpp ci. effectivement loolu lu wér la waaye dama bëgg nga xam ne ministre de la république la ministre Sénégal gépp la fenn fu ne dafay teewal président ca lam ko dénk njaareem moomu ko waaye moom moom moomale boppam dëkk bi. dogalee ñu toll foofu man dama jàpp ne Jurbel war ñoo gestuwaat seen bopp xam ne ki ñu war a fal mu defar dëkk bi gis nañ ko teg nañ seen bët. ndax jëfe na jëf na jëf ju wane ne man naa saafara jàngoro njaareem mu monsieur le ministre Dame kon monsieur le ministre ñu lay sant di la gërëm maa la jara bàyyi xel la ku jara jàppale la ku jara gunge la parce que fii mu ñëw di fi yóbbu njaareem lottoon nañ fi ci làmb ji mu indi ko foo xam ne làmb àgg foon ba tey jii bu ñuy organiser drapeau chef de moo ak Ngom ak ñi mu ko seqal bokk nañ ci la tax xalaat boobu président jël ko wala ñu ngànk làmb jël ko jëmale ko ci président mais jëmale ko njaareem kon monsieur le ministre ngi lay dénk xale bu baax a baax loolu mu wax nag ci shérif bi kontaan naa trop shérif dafa waroon dem élection demul waaye du ñàkk dem ndax bëgg na ku bëgg naa jàppale kuy dem te ku yàlla y déey nag da ngay xam moom ku yàlla y déey la am na lu mu xam lu ñu xamul la mu xam ba tax mu toog la mu xam ba tax mu bëgg laa jox loxo yàllaa ko ko déey kon nañ ko dëkk loxo mu ñaanal ñu waaye dañu jàppale danoon dem toog waxtaan ak moom merci beaucoup jërëjëf fasit naaru góor yi takk nan leen ku man na nga war ku manul te nga toog lamb ji na lool waaye tudde ko ku réy sama xarit yàlla njaari laale baaxu góor la mbokki bawol mbokki njaareem mbokki mbàkke mbokki tuuba ah, yéen ñëpp euh, maa ngi leen di rafetlu euh, seetaan bi ngeen di seetaan euh, bawol time di rafetlu itam teewaayu président le promoteur jurbel production di rafetlu teewaayam ci indi drapeau bi ñu bu mu indi pour remettre ko Mouhamed Ben Diop le président du mouvement du parti mouvement Pass-Pass ci teewaayu kii wax léegi di Ndeye Ngom le chargé de l'organisation di teewaayu aussi Seydou Tall di euh, secretaire à la vie politique euh, moom tam di rafetlu teewaayam. mouvement Pass-Pass parti boo xam ne Mouhamed Ben Diop moo ko jiite teg ma fii Diourbel may coordonnateur am régional am moom ci boppam mu am programme boo xam ne sur le plan sportif moo tax mu sawaroon ci ñu teew ci arts martiaux bi def seen seen seen i guddi rafetlu aussi di teewal di leen teewal yéen ñi nekk ci làmb gi mu am ci nag programme bu fas programme bu rëy pour le partie bés bu jëlee réew mi bés bu jëlee réew mi tënk na benn programme bu jëm ci affaire lutte boo xam ne sur le plan infrastructure sur le plan de l'organisation n'est-ce pas di nga xam ne ñoo seq làmb bi parce que làmb tey lu bëri lay dundal ba ci ki ciy jaay sandwich ba bi nit ñi dugg ak gerte ak ndox sax di ci gis boppam mu bëri employé yi muy jël jeune yi ji ci liggéey mbër yi ji ci dund mu ne nag mais am na lu des parce que mbër esportif la am na âge boo xam ne dootul bëreeti war nañ leen préparer ba nga xam ne ñii nekk ci làmb gi di bëre bés bu ba demee ba mënatuñu bëree pour gagner seen vie ñu organise leen ba mën leen di leen di fay comme ni ñuy fay retraité yi mooy ay assurance organise leen ci affaire assurance affaire IPRES affaire jëm noonu mu ngi ci programme bu rëy rëy rëy bu jëm ci ñii promoteurs yi promoteurs yi mais ni ñuy ni ñuy subventionné entreprise dañ leen war a subventionné bu ñu leen bàyyee ak euh, les sponsors rek doyul état bi war na ci dugal loxoom ba nga xam ne bu sponsor ñëwul ñu dem bu ñëwee ñu dem yokk ci li am loolu aussi ci programme am la pour taxawu promoteur yi kon bokk mbokk ñi fi teew Mouhamed benn Diop mi ngi rafetlu li ngeen ko tuddee drapeau bi nga xam ne mi ngi sekk ñaari mbër yu mag yooyu du Ama Balde ak remorque ak ko Bawol pro nu mu tëddee Bawol production. Jurbel production euh, tëgg ko mais visibilité bi teg na ko ci Bawol Times muy nag ku ma xam. Bawol Times ah yàgg naa dem ci teewaay ñu teew fa defal liggéey bu rafet maa ngi leen di yéen ñëpp mbooloo bi maa ngi leen ñu jox daje boobu ñu leen woo ñëpp yéen ñëpp le 8 janvier ci drapeau boobu ñu tuddee Mouhamed Ben Diop le parti du mouvement Passe Passe. dañoo sakar. la war mooy dema teral waaw ku baax du ñàkki noonu guy galis na